al ay wal xidma di jaamu yàlla ak liggéey liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem ñu nekk ci al ibadatu xidma yépp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mbooleem groupe yi nga xane ne daañ di séddoo ak al ibaadatu xidma ci wax yi nga xam ne ñoo fi jóge yépp di ñëw ak ay kàddu rek yoo xamante ne ginnaaw doomu aadama lan dib taalibe te dëkk ak sun bokki taalibe di ànd ak ñoom ci lépp ah te it wax dëgg doonatuñ goog gone ndax nit bu fi am juróom-benn fukki at ak benn buñ dee lim mag ñi boole ko ci kon su amee lu mu gis walla lu mu yëg te xam ne mën naa am ah mën na caa dugali kàddoom ndax ñu gën koo jariñoo mu dugal cee kàddoom loolu rek moo waral suñ kàddu yi kàddu yi nag weesuul rek ah, laa bire suñ bokki jullit suñ bokki taalibe ñu xam ne euh, tubaarkàlla masque yi moom mm, doxe nañ ci euh, ndigal ba euh, niñ ci doxee moom yéeme na lool waaye nag dama bëgg ñu xam ne li jar a bàyyi xel nag mooy masque ak sel moom kese du màggal ndax mel na ne nit ñëpp seen yitte yëkkati nañ ko jëme ko ci masque ak sel te eh, ndigalal sëñ bi ah du woon masque ak sel ndax bernde moo ci jiitu kon nag bernde ah, jar naa bàyyi xel ci ki yëkkati li mu am lépp def ko ci masque te xam ne ndigal li jiitoon mooy bernde kon jàpp naa ne lu jëm ci ay bernde yëpp war nañ cee bàyyi xel war nañ cee bàyyi xel ndax Pastef euh, bi rëy na ba nga xamante ne buñ xisee joxoñ dara rek ah, ñun ñëpp nu daw song ko waaye nag dañuy fàtte ndigal lu jëkk la ndigal lu jëkk la euh, moo doon bernde ndax it fi mu toll buñ ko seetloo fi mu toll tey masque yi ak sel bi ni mu baree euh, ci ci ci ci ci ci ci ci nga xam ne dafa mel ni ñëpp ñëpp ñëpp moom la ñu indi euh, mën naa demit ba laal économie màggal gi ci wet yu bari ndax mën naa am am na kuñ ñu indil ndox wala di ko indil boisson wala di ko indil fur wi te masque lañ kese lañ koy indil te yaakaar naa ne masque yi lu ñu bari bari bari doo mën a ami gan ñu toog nga jox leen ay sell ak masque rek ñu toog. dana am lu cay ànd kon loolu ciy àndit nag jàpp naa ne jar naa bàyyi xel te bañ a dëgmal rek masque yi kese ndax masque fi mu toll lañ koo siitlut waaye nag danaa dégg ñu wax 5 millions masque ndax 5 millions masque buñ ko boo ko xaymaa fi mu toll day taxaw un milliard 500 millions moo tax wàllu économie dafa jar a bàyyi xel ci lépp looy def boo yëkkati nangam di ko wax nga xool. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nii nekk ci àll bi baax na yëpp di teg nuyoo bi ci loxol Cheikh Mouhamadou Fadilou Bousso mii ci bunt bi te ñun dañoo junj rek moom mu leeral nag leeral yoo xam ne dafa mel ne jar naa déglu bu baax waxam ji te bàyyi ko xel ndax gis nga loolu mu wax ci ñi doon def safar gis ngeen googu jubbantiku. yoonu murit am nañ kàttan am doole joo xamante ne li des rekk mooy nosu ak di dox cim xel yoonu murit bis bu nosoo nam war a nosoo di dox cim xel nam ca war a doxee ñi ci war a bokk ñépp balaa dara jóg ñu di ko waxtaanee yoonu murit dana jug jug goo xamante ne waxuma di jaaxal Sénégal waaye dana waa jaaxal àdduna bépp ci dox gu gaaw ci économique te mbir mu ne it nag fi mu toll maanaam buñ koy nas dañ caa war di boole économique ndax day lu am solo. ndax euh, li tax mu jar cee bàyyi xel mooy xool ni sëñ Fallu bu sa wax rek kenn ku ne buñ joxoon ndigal kër gu ne fexe ba am ay mask jox ndigal kuy ñëw ku ne fexe ba indi masque yu la fi doy kon économique boobu du yàq dara ci liñ war a def te du tee noonu mu ko waxee mën nañoo dem ba am ëppul cinq mille yoo masque am cinq millions masque sax baax na waaye fexe ba nit ñi di takk masque lañ war a wax ndax bu fekkee lijjanti nañ pour am nguur ak am cinq millions masque cinq millions masque ni ma ko waxee sànq boo ko xoolee muy un milliard cinq cent millions man lu bari mën a dugg fu bari kon suñu fexee ba nit ba ba am ko euh, te te kenn tëkk ko it te lépp it ay carton lay doon rek yuy denc ci magasin yi yàllaa xam ba kañ yàllaa xam ba kañ moo tax loolu sëñ Fallu wax su doonte le ne maanaam dañoo joxoon digal kuy ñëw ku ne nga fexe ba indi loola doy ci li ngay takk masque ci màggal gi kër gu ne fexe ba am lu mu mën takkal waa këram ay masque boobaa liñ soxla woo day daj te liñ soxla woo day daj te te te coono du am waaye nii ñu def nii rek ah, jàpp naa ne bu ñu ba ci cëppaandaw ja ah, dana bari ñu ko yëg de rawatina nag kilifa yi dana bari ñu ko yëg ndax wóor na ma ne dana bari kilifa guñ daan indil lu man di bernde ci màggal bu xefee carton masque ak sel lañ koy indil kon moo tax ma ne war nañ cee teel a jóg par cee wax par cee bàyyi xel jërë ngeen jëf